أيسم لله الذي ولي إبليس إذ ناديت بيا ولي salaamaaleykum jërë ngeen jëf mbokk yi ñu topp ci seen internet bii di 24 actu yi bu baax di leen ziar di leen ndokkeel ci weeru safar bi nga xamante ne ci la nekk mu nekk weer boo xamante ne mën nañ ne heure bu teroo rek ñëpp di bàyyi xel li nga xamante ne moom mooy bis bu safar di bis bu màgg ba bis bu sell ba bis bi nga xamante ne ci la Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul demoon ci tukkeem bu sori booba di bis bi nga xam ne moom la doon waxee naan xalatu yow ma sabti saamina asar li xidmatil muxtaar fii xëy di safar tey nag bu ngeen gisee suñu gis suñu taxawaay ñu ngi nekk fii ci dëkk bu sell bii moom Serigne Dame Lo euh, lépp nag li ko waral mooy safar gi nga xamante ni da koy amal at mu jot euh, bu ñu duggee ci juróom-ñaareelu fan ci weeru safar ku ne xam ne tey mi ngi yemoo ko àjjuma juróom-ñaareelu fan ci weeru safar yemoo ko 25 du mois de septembre 2020 euh, gi bi ngi gis jotaay bi nag mu nekk bis bi nga xamante ni mooy bis bu màgg bi nga xam ne Serigne Modou Lo Ngabou da koy amal fii ci dëkk bu sell bi di Ngabou di bisub xasida bi yoon juróom-ñaareel bi yoon mu koy amal mu nekk bis boo xamante ni mën nañ ne ay daayira yu bëri dañ fiy daje waaye tamit ay jàngkati alxuraan rawatina jàngkati xasida yi mën ngeen ñoo topp ànd nag tey nag ñu daal di ànd ak suñu équipe déplacé wu ñëw lépp rek ngir bañ li nga xamante moom mooy journée xasida bi dara raw leen ci incha allahu rabbi mën ngeen ñoo topp ci kanam tuuti dinañ leen yaatalal lu bëree bëri dara du leen ump ci journée xasida bi ak borom kilifa yi nga xamante ni dinañ fi ñëw lépp dinañ ko leeral incha allah ci kanam tuuti ngeen ànd ak ñun topp ñu ci site bisu xasida bi nga xam ne moom la Serigne Modou amal fii ci dëkk bu sell bi di Ngaabu mbokki jërë ngeen jëf ayasa minillahu inda jeewali iblisa isnadayto biya wali nafaali xayrillahu xablu findari Ah, jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy topp ci site internet bi de 24 actu yi ñoo leen ko digoon sànq comme ni ñu leen ko waxee woon rek ah, ñi ngi fii ci euh, Ngaabu ci journée bi nga xamante ni Serigne Modou Lo amal journée xasida bi ah, bi mu nekk juróom-ñaareelu yoon mu koy amal ci bi di Ngaabu comme ni ko diggee woon tey ñu ànd ak kenn ki nañ ne ci jëriñ ñuy la bokk liggéey bi depuis liggéey bi commencé ba bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci wàllu organisation bi ak lépp loo xamante ni aju na ci bis bi ñuy amal ci Ngaabu laata loolu rek ñu bàyyi ki nga xamante ni moom la ñu mu nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo koy topp ci seen internet bi di 24 actu yi euh, sëñ bi maa ngi nuyu ma bàyyi la nga nuyoo ngi salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziara euh, di wax leen dal jàmm ci bis bi incha allah di fi seen tontu ci mboolem ak solo yàlla. Euh, macha allah jërëjëf sëñ bi nuyoo bu am solo boobu euh, ndax mën nañoo xam euh, liggéey bi euh, kan la ko ki nga xamante ni moo di Serigne Modou Lo Ngabou commencé def dipp boobaak léegi. waaw liggéey mel na ni 2014 la tàmbale woon moo nekkoon première édition bi ren di dëppoo juróom-ñaareelu édition. muy journée xasida boo xamante ne da koy defal da koy def di ci sant sëriñam di sëriñ Touba yi la ji lenn képp la sant ngëneel yi ak xéewal yi yi nga xamante ne day day day day day balle ci sëriñ bi saa su nekk di lim ci moom mu gis ne amul lenn cant lu gën a rëy defal ko bisub xasida boo xamante ne donte ne cant li sax a ciy sax saa su nekk waaye mu jël benn bis boo xam ne bis bi fees lay doon muy ajjuma ji njëkk ci weeru safar ajjuma ji njëkk ci weeru safar at mu jot sant borom Touba ci alxuraan ak xasida macha allah am na solo mu mel ni nag dañu fay gis ñoo xamante ni dañoo nekk si biir di jàng xasida ndax mën nañoo xam ñooñu ay kuréel lañ yoo xamante ni ci ngaabu la ñu féete wala bis bi moo leen tax a jug. déedéet ñi ci ëpp ci ñoom nag ñii ay wëllëre lañ ñi ci ëpp ci moom ñii dañ koo sopp ngir sëriñ bi ñi nampee ci moom. na sëñ Modou dara fisul ci moom lu may jëmmi borom Touba ji ñii dañuy durus xasida ab ab lim ay limi lim ay junni junni jaalibatul maraaxib ñii ci bisri ñii ci uh, nuru daare ne am na ñoo xamante ne ñooy nota lim bi alxuraan itam dongo yi ca daara ji lu mu indi nañ fi ñaar téeméeri dongo yoo xamante ni dañuy xëy di wàcc alxuraan soo ba ngoon jot am na yeneen alxuraan yu yoo xamante ni lii la dara lu may wàcc fi ay kaamil alxuraan di ko fi eh, jàng boobaa boobaa boobaa ak mais lu jëm ci wàllu organisation bi ndax nañ xam jamono bii euh, naka lay tëddee mu tombeek jamono boo xamante ne ku ne xam ne mbas mi di Covid 19 dafa lëmbee àdduna bi lu jëm ci wàllu euh, euh, organisation bi rawatina ci jamono bi ñu nekk naka lay tëddee. waaw lu jëm ci wàllu organisation bi ni muy tëddee ci ni muy tëddee ci jamono mbas mi ku ne xam na ne mbas moom coobare suñu borom la. waaye li yilla yilla yi nga xamante ne mooy mooy mooy melaw zahir si muy ay ay ay zel masque loolu lépp kenn ku nekk bala ngaa dugg ci ci ci bërëb moom incha allah dana fexe nga sàmmonte ak moom leneen les moom nañ ko bàyyi ci loxol sëriñ bi rek na moom moo nu gën a xam suñu bopp kilifa yi nga xamante ne dañuy teew ci bis bi ak ñoo xamante ne gën nañu cee ràññeeku ñan nga ñu ci mën a limal waaw kilifa yi moom ñu ci bëree bëri sëñ bi dañ leen koy dañ leen koy yëgal buñ dikku di seen ndaw day dikk ku ci mel ne Cheikh Abdourahman daaru daaru daaru musti wëllëre wëllëre sëriñ bi la sëñ Alhaji Mbàkke itam naka noonu ndaw sëñ bi dafay dem sëñ Amsatu Mbàkke itam noonu moom itam wëllëre sëñ bi la ndaw sëñ bi dafay dem ak mboolem kilifa yi fasante ko nga xamante ne dañuy dund xasida te ko yëg fasantikoo yooyu dañuy dañuy dañuy teew ci bis bi ñu nag laata bis bi ñëw bu ñu ñëw suba la bis bi i ndaw day ñëw ci bis bi ñii itam seen i berne dañuy defar ay berne indi mu ñëw mu ñëw bër suñ bés xel ko mi suñ bés xel ko mi daana daana faral di ñëw ci bis bi ren rafet naa njort ne ngoon incha allah dana fi teew macha allah mais nag ñu duggaat ci li nga xamante ne mooy wàllu xasida yi ndax man nañ xam ba xam sëñ bi dafa yor kuréel goo xamante ni heure bu at mi jotee ñoom ñooy ñëw pour jàng bis bi wala dafa am ay kuréel yu kuréel yoo xamante ni euh, da leen di woo ngir bu bis bi jotee ñu ñëw bokk si njàngum xasida bi ah, waaw ah, jàng jàng ko yor dafa yor ay daara sëñ bi dafa yor ay daara dongaa mi dañuy dañuy kuréel dañuy durus waaye li ëpp ci ñuy jàng ci ci bi ay ay euh, ahlu xasida yi lay doon sëñ Muntaxa Gay kenn jiituwu ko ci sëñ Ibrahima Bay xasida kenn jiituwu ko ci euh, ñoom seexu naa mbaj Iliman Touré ñoom ñëpp ñëpp euh, suñ seex tun ñoom ñëpp dañuy dañuy teew si bis bi saa su nekk jamono ju nekk waxtu nekk même bu bis sax jamono nekk dañuy ñëw di saar sëñ bi ngir xam nañ fi sëñ bi teg xasida xam nañ fi sëñ bi teg ñooñ xasida ñoom ñëpp dañuy ñëw ànd ak sëñ bi di teel ko bis bi di macha am na solo mais nag bu fekkente ne jàngkatu xasida yi nga xamante ni mën nañ ne siiw nañ te nañ la lu mel ne ay ñoom suñu xaadim kebe ñoom xaadim géey ndax ñooñu tamit dañuy ñëw ci bis bi kebe ñun wax dëgg teewaguñ teewaguñ ci bis bi waaye daal ñu ëpp ci ñuy teew ahlu rajas ñi nga xamante dañuy rajas ak di durus ñoom moom ñoom ñëpp dañuy dañuy teew ci bis bi ñu ci ëpp nag ginnaaw takkusaan lañuy teew ci bis am na solo sëñ bi yéen jeexal ngay joxe ak kàddu yu ndénkaane waaw kàddu jeexal yi de ak kàddu ndénkaane nekkut lu dul tàmm dégg ci làmmiñu sëñ bi mooy ñu jëfee mboolem ndigali suñu borom yi lañ ca man mboolem tere yi ñu daw lépp góorgóorlu ci ak taalibe fexe ba suñu taalibe duñu rëcc sëriñ bi dañ koy ñaanal jëm ñu borom Tuubaa ji des ci moom di ko ñaanal aw fanu gudd lool ba mboolem li mu fas yéene liggéeyal borom Touba fas yéene koo naal ci yoonu sëriñ bi loolu lépp suñu borom kàttanal ko ndax day wax ne juróom fukki daara ak juróom benn la fas yéene taxawal borom Touba te loolu borom Touba nangul nag ko kon a ñu koy a joo xamante ni la fas yéene taxawal ñu koy ñaan yàlla na ko ñaanal yàlla na ko mottali ci jàmm ak salaam ñu ngi leen bàyyi Euh, ngeen toppandi ñu ci journée xasida bi nga xam ne moom la ñuy amal fii ci Ngaabu euh, jërë ngeen jëf nafaali xayri llahu fi ndakaaru kulla san li jaro makaaru allamani rahmanu fi safina bi annani xadimu sil madina barra na si ñu ngi leen di nuyu baax baax di leen ziar di leen ndokkeel si bis bi tedd bi comme ni nga ko waxee rek bis bi moom bis bu am solo la ndax ñu ngi ko toll si septième édition mu toll ak juróom-ñaari édition ni ngeen ko gisee ba ñu xëyee ba léegi ñu ngi jàng alxuraan ak xasida loolu day tàttale ne bis bi léppam génn génnu sëriñ bi. Euh, mu mel ni Ibrahima yaa ngi bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore lépp loo xam ne jëm na ci wàllu organisation bi ndax mën nañ xam wàllu organisation bi euh, naka ngeen ko tëralee jamono bi waaw soxna si comme ni nga ko gisee rek daara ji moom dañoo dañoo tënk bis bi ci ay section boo xoolee am na communication am na hébergement am na ñu yor wàllu euh, collation am na ñu yor wàllu cuisine li ko gisee nag man maa féete ci wàllu accueil ak hébergement ñun ñooy dalal gan yi ñëw mu mu tolloog ay kilifa mu tolloog waa axlu mu tolloog waa axlu alxuraan comme ni ngeen ko gisee saa bu ñu ñëwee da leen di dalal sëñ bi bu dee dañoo ni ay jëf yi jëm si sëriñ bi sëñ bi bu ko gisee ñu yóbbu leen si base ñu nekk ci liggéey bi bu amee gan yoo xam ne dañ leen di dalal feneen ñun ñoo leen di saytu ñu dalal leen feneen. mu mel ni fii macha allah organisation bi dafa jaar yoon lool ndax dañoo gis ne base bi dafay am côté boo xamante ne góor ñi ñoo fiy nekk am côté boo xam ne jigéen ñi mais côté bi góor ñi nekk nangu benn jigéen dugg fa loolu ndax mën nañoo xam sëñ bi lan moo ko waral. waaw loolu de bu leen jaaxal ndax ñun ñi ñëpp xam ne ni sëriñ bi daa bañoon na wax ni foo ji fa jaxasoo boo leen nee yàlla mi ngi fa rek fa leen dëkk kon bis bi ni ngeen ko gisee loolu day wane rek ak sell bis bi gis nga soxna yi dañoo leen wutal bar góor wutal leen baram ni ko waxee sànq moom jaxasoo jigéen ak góor gi moom teg leen ay ay jumtuwaay yoo xam ne du ma ne dana am waaye dana jafe dana jafe lool dana jafe lool. Euh, ndax mën nañ tamit xam tamit euh, kuréel bi nga xamante ne yow ci kooku nga foofu nga féetee euh, kuréel bi bu doon wàññi tey jii nombre de personnes bi ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk ñaata lañ. waaw lu mel ni daayira mooy bi naa fex daanaka mooy daayira sëñ bi féetee soow am na daayira bu féetee fii am na daayira bu féetee Mbàkke am na daayira bu féetee Ndulo. waaye jëmmi bés bi moom duñ ci ràññee benn benn benn benn daayira ndax liggéey bi ñu ñëpp ñoo ko bokk di defandoo waaye comme ni nga ko gisee nii moom ñun nit ñi ñëpp ñoo yor liggéey bi. Euh, di ko saytu commission bu nekk di ngi ci gis waa Ndakaaru di ngi gis waa Ndulo di gis waa Touba di nga ci gis waa Mbacke. kon ngeen a boole waaw jëmmi jëmmi bis bi daal dañoo boole ñëpp ñu doon ñu doon benn ci jëmmi jëmmi jëmmi liggéey bi waaw. xanaa dañuy santaat sëñ Touba baax baax di santaat ku baax ci sëñ Modou Lo mu baax baax di ko ñaanal mu yàgg fi bu baax a baax di ko ñaanal mu yàgg fi ndax lii rek day firndeel ne liggéey gi mu nekk ci sëñ Tuubaa mooy alxuraan ak xasida day gën a jëm kaat ndax yaakaar naa bis bi buñ koy tàmbali daanaka si ñaari gàtt lañ ko lañ ko defee kon buñ ko defee ba nga xam ni ci ay juróom-ñaari nag ak lu ko ëpp daanaka moom lañ koy defee kon dañuy gis ni rek bis bi génn sëriñ day ñaan lépp loo xam ne fas leen ko fi sëñ Tuubaa nangul ñu ko loolu daal lañuy lañuy sant di ñaan nag mbas mi nga xam ne daa tolloog jamono bi suñ borom tekkil ñu ko si barke sëñ Tuubaa xes de إلى المناكر أسب أن الله في كرم بسام قبل مبارسي وهني قلب صاداني ريم عند الدوم له بما إخنى أن التسوم يزر للمدى لدى لبر ولي من خاد لي ما خاب عن كل ولي عياس من لله النجي ولي إبليس إذ ناديت بيا ولي